deuxième chose maintenant sur euh, euh, sur euh, Ousmane je pense que ce qui est important c'est sa posture par rapport au principe en fait euh, peut-être que ça a été une erreur de sa part d'être dans le dans le rejet absolu comme par exemple euh, Fra euh, France dégage je crois que ça ce n'est pas un slogan judicieux parce que Sénégal yëpp la ñu soxla yàgg nañu am ay relation ak France donc boo nee France dégage ci sama gis-gis loolu waxuwul parce que euh, l'essentiel mooy ñu ne euh, muy France muy Brésil muy Chine muy Japon muy bépp réew su fekkente ni dañu jëflante ak ñoom nañu jëflante ak ñoom ci kaw ñuy seet toujours intérêt Sénégal donc loolu c'est une position de principe euh, radicalisme ou extrémisme loolu je pense que du loo xam ne mën na jëmale réew kanam beneen aspect bi léegi ci wàllu euh, ndaw si nga xam ne dafa ñëw seet si Ousmane Sonko ak euh, li président Macky Sall recevoir Marine Le Pen je crois que euh, ci wàllu woowu bon. Euh, xëy na peut-être euh, aussi li nga wax ne c'est genre mesure la parce que euh, président Sall recevoir na benn opposante boo xam ne euh, opposante bu am bu xaw a am doole la France mën nañ ko gisee noonu mais aussi gisuma ne c'est quelque chose d'extraordinaire que partenaires yi di waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy acteur politiques yi parce que France aussi bu ñu fàtte ne dafay sàmm ay intérêt donc day seet ne xëy na euh, day bañ mu am un régime boo xam ne dafay tirer sa légitimité de la du rejet de la France te bu boobaa ay intérêt euh, da dañ koy laal te état yi ni ñu koy waxee amuñu ay xarit ay intérêt la ñu am